asalaamaaleykum euh, mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen di ziar di leen dana jàmm fi nga xam ne mooy ba ngéen donc euh, comme ni ñu ko diggee woon euh, rajo Taïba mi ngi nii gis ngeen suñu taxawaay depuis dem ba léegi ñoo ngi doon def direct événement bi nga xamante ne mooy événement bu mag bi di ziar ba Nguéyéne comme niñ ko digg won ñoo ngi ni tay ci juma ji ci dëkk bi nga xamantene moy dëkk Prof Moussa di hadira Prof Moussa donc di wajal événement bu reuy moy eh, ziaré bi donc instant yi ñoo ngi ni di wajal ben plateau spécial xamna fi ci kanam dinañ am ay gan yo xamantene ñi bayiko fu nek ngir defal len direct bi waye timit ngeen ngeen mën kam après inshallah journée bi donc di len wax ni ngeen dem gaaw abonné ci suñu page eh, YouTube bis boo leen duggee ci page bi rek page de recherche da ngeen di def rajo ba ngeen mën a abonné waaye tamit mën ngeen ko am suñu page Facebook rajo Taïba donc di leen wax na ngeen dem abonné gaaw balaa muy trop tard jaa ngeen jëf.